Facsimile! Dakar rayati nañ benn doomu Sénégal ca bitim réew de i tribune yéen a kaay ne Mor Sey lay wuyoo moom day ñetti ko dóor ca Italie jaay mu faatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah, maa la ko wax de la ko tijee yéen a kaay ne ministre ñu dénk lépp la jëm ci wàllum jox na kon ndigal consul général du Sénégal ba nekk ca Milan gay nga xam ne sax yónni na ngir mu daal di jokkoo kon ak kilifa yi Italie ñu dénk kon wàll bi yoon ngir kon ñu ubbi ca blanket ngir jëf joo jee ki nga xam ne kon moom moo ko def nañ ko teg loxo te nañ yëkkati tam ay daani ko ci ndoddam ñi Mbàkke gi war nañoo yëkkati kon ay daan yu saf saf la seenum ndox développement populaire ne avion yi nga xam ne day ñoo doon yóbbu kon ujaaj yi ak dikk day waaw jeex na te lu ëpp na ñaari téeméer ci ay ujaaj waaw ma ne la ñu ngi leen bloqué kon ci aéroport Ndakaaru Njaay jël jóob gi lée seen aj bi day waaw fi mu nekk ni lée tax na suuf mar di itaali commission bi nga xam ne nag maanaam kon ñoom lañ dénk wàllam ak ga day ñoo leen a waroon yóbbu day kenn gisu leen libération yéene kaay ne ma ne la doomu commissaire bi ci boppam kon dañ koo séquestré le populaire ne ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali ma ne la gis nga ñooñee waaw seen yaakaar daa tas am lu leen miti lool ñoom pèlerin waaw te nag amuñu sax ku ñu waxal ñu jël dogal na doogoon ci angar googu ci ay aéroport ba ba keroog na nguur gi kon di leen indil kon am saafara ci yàlla le populaire ne te nee nañ nag dee eh moo leen gënal gàcce maanaam delluwaat seen i kër te duñ gis kaawa gi gàcce googe xëjuñ ca commissariat général ba ca boppam kon la ñuy tuumal ne ay escroc lañu ndax versé nañ leen ñaari millions ak juróom benn fukki junni ci suñuy koppar deux millions trois cent ma ne Sall kon la waxal tee ngir mu wax ak général Amadou Tidiane Dia mooy commissaire seen dara kon leerul libération yéen a kay ne mennum Moustapha Diop ministre microfinance waaw moo fa dikk kon indil ay boisson ak ay lekk de enquête yéen a kay ne Aziz Ndaw oustaz Ndiaga ñoom ñoo ñee angaar ba de dañ leen fay bàyyi waaw laas eh, élève Sénégal néma Abika waaw xam nga yaay ji président da ko mayoon ab billet ah yaay ja tam nga ca angaar ba de demul ba léegi ni la dee ca jamono joo xam ne ne kon ujaa jooyee sonn nañ bay bëgg a dee tamit ci inondation sonn nañ bay bëgg a dee yéeni kaay ma demal jàngi ne ginnaaw nag opposition bi daal waaw gouvernement ba day waaw fees dell ca banlieue ba kon la nu def maa la ko wax wàcc bi nga xam ne nag opposition bi wàcc nañ ko foofee kilifee ne ci nguur gi day tan xam luñ ko dee déedéet parce que nag njabootug ñi nga xam ne kon inondation ñu ngi leen di bëgg a rey ña ngay wéy di dalal nag ay ministre de la république ak ay kilifa yéeni kaay ma demal jàngi ne sa jidda caaroy kaw googee waaw Anta Sarr Diako délégation générale solidarité nationale waaw moo ay nitam day ña woon ca école Thierno Salif Ndongo jidda caaroy kaw may nañ leen fukki tonu ceeb ay mbàjjaki basal ak lu ci tolloo juróomi million super ca wax naan nim saat gae Mame ministre de la jeunesse ànd Eva Marie Coll ministre de la santé waaw ma ne la woon te dem nañ tam ci ay gox goxaan yu bëree bëri kon ca Pikine ak Guédiawaye a ma ne ministre Mohamed Boun moo nekkoon ca manifestation ba yéen kaa ngi ne bëri ci ay sénégalais yoo xam ne maanaam la gisoon lenn la de mooy Macky Sall bu fa ñëwoon rek la ko daloon ca université gay maanaam joor koy xeer waaw moo ko naroon na dalaat ca Pikine de mardi Italie mardi waaw parce que mbir ma ca banlieue boobee tar na gerte xeetu tar goo xam ne kon mardi Italie yi ndax wàllum inondation yi Mame Mbaye Niang ne président ci boppam kon mënul woon a ñàkk a teewe nag sommet wu conférence extraordinaire CEDEAO bi Déthié Fall di vice président réew mi bi Idrissa Seck ci témoins yéeni ne président Macky Sall ci boppam ay jafe-jafe la am ngir saafara kon jafe-jafe yi nga xam ne kon moom la sénégalais di dund te li gën a reetaan lu ne kon ca mbir ma mooy yow te jamono joo xam ne kon sénégalais yaa ngi ni lee inondation yi di leen dugg ci biir kër yi ci wàllu wee moom amul dara lu mu def moom président lu dul di Messi Cristiano Ronaldo carrément super ma ne la président Macky di football laa ni ci taatu géej gi ak ci suufu jant bi Déthié Fall ci grand place ne déggoo leen ma di ca jamono joo xam ne kon am na ci ay sénégalais yoo xam ne ci mbedd mi la ñuy fanaan président Macky Sall di football ci suufu jant bi Déthié Fall ci laas ne mu mel ni daal président Macky Sall daal li sénégalais di dund ni yëgu ko sax nga ñam cay président président ak mandaam bi su mu fa nee na coow la léegi jeex na na référendum bi mai ko jàpp le la référendum bi di am te mooy yéene te ne dañuy raket ak di jël kon xaalis nit waaw doomu Mbàkke Mbàkke métier la libération yéene kaay fukki at ak juróom-ñett ngi bi mu ñu ak léegi ni lée rataxalkat bi ki daan ñëw diggante yo Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh Allahu akbar ba ne stade Léopold Sédar Senghor la ma la parking ba ca boppam la ñu yëkkati tali ba wër ba noonee te oto yi fa taxaw ak auto école ya di fa ne jébbal nañ ko benn promoteur immobilier ngir mu tabax fa eh way samba laa la ko wax te la ca gën a doy waar mooy boo sàgganee day waa FIFA kuréel ñu dénk kon wàllum football ba ci aduna fa ci boo xam ne kon moom la ñu tabax kon lii sa parcelle b ak beneen pàcc boo xam ne projet Malick Sarr dañu ko jox ak beneen parti boo xam député ko séddoo ak beneen parti boo xam ñu nekkoon ci nguurug Abdoulaye Wade gee ko séddoo ak beneen parti boo xam kon grade yi nekk ci armée bi kilifa nekk ci armée bi lañu ko jox waaw Macky Sall day ma amul terrain bu mu jaay léegi nag jël nañu dogal nag daal xolli kon goudron bi nga xam ne nekk ca parking boobu stade amitié waaw ma xolli goudron ba lañu nar bu ko defee jël suuf tabax fa ay étage laa ilaha illallah <laughs> cay waay lii nag mooy ndar ràññ stade Marius Ndiaye ma nga ne doon senn te nee nañ dañoo bëgg a gañekat coupe d'Afrique basket Léopold Sédar Senghor stade ña ngay xolli goudron ba ngir tabax ay étage ñu ne dañoo bëgg a gañe coupe d'Afrique yàlla gëmul nelawul moo tax ma naan la tëjal